El Hadj Ibrahima Mbow ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay. waaw di wax euh, yaay euh, tête de liste nationale coalition buntu bi ak mandataire bi. waaw dëgg la ma nekk mandataire national de la coalition buntu bi. d'accord. donc am mbégte lool pour waxtaan ak yow di répondre sa invitation. d'accord merci beaucoup tey ñu nemmeeku ay démission yu bëri ci coalition buntu bi. à quelques ñu dem ci élection législative yi lan nga ñu lan nga ciy mën a indi ci ay leeral. waaw yu bëri nag moom euh, <laughs> amul am na ñu dem effectivement euh, mouvement Passe-Passe daanaka mosul dugg ndax seen tête de liste moom dafa mos a wax ne moom député intéressé wu ko li mu bëggoon rek mooy ay ay collaborateur am nekk député moom ci boppam élection présidentielle la moo ko intéressé moom dëgg la dem na bind na bataaxal ne dafay dem ay nag ñu topp ci moom yëpp. ñu ngi ci ñun. Mm-hmm. waaw les Ouleye étudiante représente Passos mu ngi ci ñun. Euh, Serigne Babacar qui est le fondateur de Passos mu ngi ci ñun. Euh, Marie Christin de Saint-Louis mu ngi ci ñun. ñun ñëpp ñu occupé les postes de titulaire waaye na su fekkee ne am na ñaar wala ñetti suppléant yoo xam ne ñu ngi quarantième wala cinquantième jotuma leen xam xëy na si loolu amul impact trop donc vraiment il n'y a pas de démission il y a des loolu moom mm-hmm. am na mm-hmm. kontaan nañ ci législative ci campagne bi xëy na aussi li ñu xaar ci xaalis koppar joxuñ leen ko parce que amuñu ko mm-hmm. et puis am na aussi euh, benn mbokk yaakaar mu def ma ni nan rek jënd na suñu nit jënd na suñu tëdd liste Mbacké jënd na suñu tëdd liste euh, Kër Massar dugg na suñu <laughs> pôle communication fekk fa ñaar dimbale euh, ba fa xëcc leen ba ñu jaxase loolu pour man du démission c'est un jeu boo xam ne ñoom sax ah man naka am trop jot pour di wax li ñu def mhm. parce que ñoom daanaka dañoo nekk situation fragilité xëy na jaaxle xëy na aussi lié à la crise lié à leur situation personnelle mais loolu taxul may wax li mu nit ci dëgg nag moo wax la ko sérieux mhm. benn bokk yaakaar li nga xam ne dafay jënd conscience yi bu ko taxaw fii eh, yàq suñu jikko yi taxaw fi corrompre nit ñi et ça ça se fait avec de l'argent forcément public wër Sénégal ak ay 4x4 yoo xam que état bi moo ko moom carburant état perte de temps polluer def bruit tout ça pour conserver une majorité qu'elle a perdue loolu man moom ma métti ça veut dire que utilise l'état pour di jënd nit ñi xool ku sonn tawat lot jaaxle nga jox ko xaalis jënd ko jënd ngorom loolu loolu mooy musiba dafa wax a démb maa ngi tëdd trois heures du matin jóg naa cinq heures du matin duggaat ci biir Sénégal bu waxtaan ak askan bi dégg wax ci de mm. état jox na ma oto bees tàq tàq tàq du ma ko dawal ci période de campagne parce que c'est pour le conseil économique dama jox sama oto bopp ak sama énergie bopp di wax ni dafa am ay yu war a wax nañu wax nañ changé jikko yi l'état doit doit jouer son rôle ni muy doxalee ni du noonu démission yooyu ngay wax Sylvie mm. moo dem ban organisation la nekk lu ma sa gagné ku ko xam kenn xamul leen kenn déggu leen man mii di wax ak yow mun naa wàcc yàlla ne billahi wala talaay ci ñun ñëpp xaw ma seen kanam. Mhm. xaw ma seen kanam xaw ma seen kanam mënuma leen wax ñan la mhm. xaw ma fu ñu gagné xaw ma fu ñu ñu di waxee xaw ma fu ñu toj donc loolu nag su amee médias yi nag dugal ko ci réseaux sociaux yi Facebook bi Instagram bi ñu déglu lu bëri la ma naan euh, c'est une comédie politicienne Sylvie soyons Sénégal sonn nañ lool dañ bàyyi ce jeu macabre ce jeu déstabilisateur di ci force citoyenne qui monte mais à tout prix dañ leen tuumal dañ leen tuutil dañ leen demi yokk ci nag ne nit ku liggéey deux mois di tagg président di tagg programme am di tagg équipe am deux jours après na da ngay bàyyi hmm. foo ko teg foo ko teg quelles sont les raisons joxoon na xaalis bu ma campagne mais xaalis kenn du ko joxe pour campagne lu ko jox xaalis bu jógee fan wax ma xaalis fu mu war a jóge campagne da ngay campagne ak sa xel ak ak say moyens ak say ñaan ak sa engagement les vraies révolutions comme les prophètes n'avaient pas de moyens dañ def atteindre nañ ko revenons sur les valeurs loolu nag la wax ne la te démission là franchement yàllaa ñu yàllaa ñu yàllaa ñu seggal waaw les petits fous là qui étaient accrochés à nous c'était des greffons yu jàppul xam nga ne soo greffee nit lu jàppul organe bu jàppul du jur jàmm donc vraiment nañ dem ak jàmm ñaan leen yàlla defal leen jàmm foofu ñu nekk ak foofu ñu jëm waaye ñun na le sent pas et ça ne nous gêne pas euh, euh, nee nga démission yi euh, yow xamoo leen ñoom tojuñu fenn mais est-ce que du leen indi la est-ce que mënu leen impacter parce que quelques jour des ay nit daal di jóge ci ci coalition di génn ndax mënul impacter coalition buntu bi. madame nit bu la joxul idée. Mhm. joxul programme joxul xam-xam joxul sa temps nekk ci campagne bi yëpp di la ngañ yow en tant que leader kooku su demee da ngay sant yàlla mun na am même parti le dimanche incha hmm. nit koo xam ne mënul wax ni am naa un conseil municipal sama dëkk ba ma nekk ah mënul la wax ne il y a dix électeurs pour man kooku su demee doo am impact kooku daf la daf la toppal Sylvie ça ce n'est pas un problème pour nous n'en faisons pas un problème te maa ngi lay ñaan ci émission bi dañuy waxtaan sur les choses sérieuses les réformes que nous proposons moo gën ñuy perdre du temps pour les Euh, monsieur Mbow euh, ñu bëri di wax ni yow El Hadj Ibrahima Mbow yow da ngay liggéey pour le président de la République Macky Sall ay fan ci ginnaaw sax leader Pastef mi ngi doon accuser une partie de l'opposition ne euh, du ñu opposition vrai véritablement yan tontu nga ci mën a indi. wax nañ wax nañ ne ñooñu xamuñ li ñuy wax wax nañ ne El Hadj Ibrahima Mbow ñàkkul fayda mm. bay liggéeyal président El Hadj Ibrahima état lay liggéeyal. Sénégal mhm. man Sénégal ñoo ma ñor mhm. je travaille pour mon pays man góor laa liggéeyal président mooy lan kan mooy liggéeyal président gis nga wax lu ñàkk fayda yooyu yéen journaliste wax leen ko relayer liggéey président mooy lan président mooy kan dañ koy liggéeyal le président il est chef d'un état il est chef d'une institution ñun on a des valeurs citoyennes des valeurs républicaines suñu expérience suñu xam-xam c'est pour un état mais d'ailleurs fu ñu ko teg mhm. liggéeyal président mooy lan cette question-là, Balmadé, c'est une question stupide en réalité. Pas pour vous, pour les populations qui le disent et les gens qui le maintiennent. C'est ridicule. D'accord. Euh, ñu jàll ci yéen euh, seen proposition coalition bunt bi euh, tey ci quatorzième législative bi nga xam ne moom la ñuy jëm lan la coalition bunt bi na la nar a proposer ak askan wi. waaw jërëjëf fi mu nag maa ngi soog a kontaan ci yow. <laughs> maa ngi soog a gën a kontaan ci yow. en réalité loolu mooy liggéey bi buntu bi daf ne. Sénégal dafa am ay réformes au niveau de l' assemblée nationale jot na nag comme foofu la ñuy séddalee que les ressources publiques soient affectées aux priorités nationales ci priorité yooyu dañ ne l' des jeunes c' est notre hyper priorité mhm. te loolu dañ ne il faut que ñu am des lois économiques sur le portefeuille de l'État pour que on ait ce qu'on appelle un pays industriel industrialisation lañ gëm ci wàllu agroalimentaire ci wàllu chimie ci BTP chimie euh, boisigrume loolu yëpp ñu liggéey ci nga xam ne suñu xale yi dañ am liggéey dañ am koom état dana créer de la valeur ajoutée ni ñu amee action Sonatel amee ko Air Sénégal amee ko feneen ak feneen dañ ko gën a renforcer te génne ko président de la République yóbbu ko au ministère de l'économie et des finances assemblée di ko saytu bu baax a baax pour xam li ñu am lan la naka lañ koy diversifier naka lañ koy consolider naka lañ koy massifier ba soit un état di créer ressources créer xale yi liggéey la coalition Buntu bi dans tous les éléments de son programme dans toutes les lois que la coalition propose Buntu bi xam lan la wax nous voulons mettre les jeunes au travail ñu am qualification am xam parce que ces bricoles de l'informel ou ces ou, ou ces petits financements de cinquante mille cent mille francs yóbbul kenn fenn donc loolu lañu bëgg dindi am un état puissant deuxième loi bu ñuy liggéey c'est sur l'administration dañ ko bëgg a moderniser ba yëpp yomb naturellement en renforçant les corps de contrôle suñ ko renforcer woon li xew poste bu ñu am tey poste mu ngi ndërmeelu depuis fukki at musiba naako lay la mm-hmm. président Macky Sall jox nañ ko quarante milliards na dugal na sept cent milliards ci mbënn mi yéen yow yéen génn leen Rewmi FM jox leen Famet di ngeen gis ndox maa ngi partout c'est un échec waaye loolu nag su ñu amoon des corps de contrôle boo xam ne nañ leen renforcer en capacité jox leen des outils informatiques recruter les ingénieurs nécessaires suñu doom yi dugal leen am xam-xam dañ koy corriger ca teel nit ki yàqal la mille francs moo gën ngay xam mu un milliard loolu nag mooy le gâchis énorme et l'échec de la gouvernance du président mais qu'il faut il faut y mettre un terme et le 31 juillet il faut donner ce signal autre loi qui sera une loi ko def cinq méga Sénégal bëriwuñu 17 millions dong lañu jëm ci 18 millions loolu war nañu mën a 5 méga région région bu ci nekk ñu def un sous-ensemble homogène cohérent l'accueil l'environnement le contexte les valeurs culturelles l'économie mais ñu dajale leen suñu fa amee un conseil territorial teg fa 100 élus yoo xam ne fa lañ dëkk ñoom lañ tànn ñoo leen di représenter ñoo fay nekkal askan bi ñooy doxal sur le plan foncier ñu jël euh, le un collège préfectoral supprimer le poste de gouverneur dañuy toppandoo colon yi baaxul ñoom ñoom am luñ ko sax fas ñu ngi toppandoo loo xam ne ñoom xëy na fi ñuy dëkk waaye ñun ñu téye ko ba tey mais ñu ñoo ñàkk fayda notre état est faible notre état est fragile notre état est complexé mais loolu dafa war a dañ def un collège préfectoral dooleel préfet yi sous préfet aussi nañu ko dindi parce que sous préfet yaa ngi mel ni yaa ngi koy xeeb alors que mu leen ñu nekk fa bi am aussi lu am solo ka nekk gouvernement bi dafa war a nekk un jeune un jeune compétent un jeune euh, boo xam ne dafa am valeur un jeune boo xam ne jàng na il pourra gérer le ministère d'État chargé des programmes de la région mais mais mais Sylvie soo amee loolu yëpp am ko à l'intérieur du pays nga jox leen un budget de l'équivalent de cinq cent milliards dañuy dox te seeni hôpital seeni entreprise gérer seen solidarité dafay dem li ñuy étouffé Dakar dafay wàññeeku parce que Dakar quatre-vingt pour cent de tout est à Dakar commerce yi fii la nekk entreprise yi fii la nekk yéen rajo yi fii la nekk ñëpp fa la nekk beaucoup de radios les journaux les avocats les presses les universités les laboratoires waaw fu ñu jëm c'était une bêtise et sur le plan environnemental et sur le plan de l'urbanisme li nga li nga am Dakar yaa non on aurait dû faire cinq méga région bu ci nekk ñu jox la loo xam ne doo loolu mooy mooy l'avenir mm. on a de bons textes nag et là je salue les fonctionnaires seen liggéey rafet na vraiment tous nos fonctionnaires di leen remercier parce que ñu ngi léegi dans des conditions difficiles ne leen il faudrait vraiment vraiment aider l'État à réussir la décentralisation acte un acte trois baax na ñoom ñu ngi naan acte trois bis parce que li ñu defoon c'était incomplet mais ñun nag dañoo wax acte unique de la déconcentration boo créé ces cinq méga régions dooleel leen ñu am koom xale yi liggéey fii doo gisati benn xale bu jël gaal di dem parce que soo bëggee dem da nga jël avion dem parce que da nga am richesse pour le faire te dañ lay respecté voilà un peu les lois qu'on propose et naturellement une quatrième loi sur les accès la santé est un problème le post Covid l'a montré les hôpitaux gis ñi de xewoon ci woon ci gannaaw xawaat na fépp loolu la dañoo bëgg mu jeex protection sociale des des citoyens l'eau l'énergie la sécurité kër gi kenn amatul jàmm Sénégal mm-hmm. suñu jigéen ñu ngi leen di agressé góor ñu ngi leen di agressé kenn du vingt une heures vingt la fekkee ci banlieue bi sa sa sa bakkan mu ngi ci xot kenn mënul dem fenn jëm naa ji boobu ñuy bàkkoo dem fa dem fa dem fa vingt deux heures xool ci mm-hmm. naaw lay dafay jëlee donc dama ne il faudrait que la sécurité soit aussi un élément avec une législation extrêmement claire qui protège les populations loolu nag liñ ne plus la diplomatie suñu xam ne yaa ngi dee ci ci ci bitim réew parce que ñu ngi bëgg a dem on ne nous respecte pas tout toutes ces lois là da ngeen ñuy may nationale une majorité confortable ñu mun a gouverner le Sénégal faire les transformations nécessaires yokkute y ñu digoon te réussiruñ ko ñu mun ko corriger wax ne buntu c'est une équipe c'est un collectif ce n'est pas une individualité qui est au service de sa propre personne et de sa famille loolu laa bëgg nit ñi jàpp loolu nag pour ñu def ko il faut yéen aussi ngeen jouer votre rôle ah, comme vous le faites d'ailleurs avec des questions pertinentes des questions utiles mais répercuter les questions des populations mais aussi suñuy réponse ñun yéen ñu garab leen ko pour ngeen delloo ko askan bi d'accord euh, El Hadj Ibrahima mbaw tey euh, euh, daanaka benn fan moo des ñu jëm ci jouru vote bi ndax am nga yaakaar waaw vraiment am naa yaakaar bu baax a baax parce que man jullit la te maa ngi ñaan suñu borom yàlla def fi gën Sénégal yàlla jàmmal ñu yàlla suturaal ñu yàlla baaxal ñu et puis échange yi ñu am ñun ñun gisuñu ci folklore tëgguñu tama tàccuwuñu tëgguñu sonorisation te daj daj di jiitaluñu cinquante quatre quatre di wax Sénégal dafa ñoolu ñun dañuy def un dialogue direct avec les citoyens seeti mm. ñëpp bu ñu kenn waxtaan ak ñoom nen ah buntu bi kat ci lii lay liggéey lii ak lii lay xalaat ne suñ ko defee suñu réew dana leen ci kanam ñun dañoo gëm ne koom-koom bii réew ñu am dañ ko gën a dooleel waaye dañ ko séddale dañ ko war a séddale ndax ku jot mun ci gis sa bopp te vraiment tous les retours sont favorables ñu ngi am yaakaar ñu ngi ñuy oo yow oo nga ma tey mosuloo ma oo sant yàlla c'est aussi un indicateur Mm-hmm. Alors que le, le, parti a 15 ans, la coalition a 2 ans. Mm-hmm. On a de bons résultats. Le lieu là, ça veut dire que nous développons, nous baillons, nous déterminons le Sénégal à passer la majorité. Nous sommes compétents, c'est la majorité. Nous beaucoup généreux, c'est la majorité. Et nous, nous voulons défendre le Sénégal. D'accord. El Hadj Ibrahima Mbow ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax. maa ngi lay remercier bu baax a baax di la baalu àq nag parce que trois heures du matin di dormi deux heures. je suis encore du pays maa ngi ci benn oto euh, les routes sont inconfortables xale traversé partout amuñu sécurité les maisons sont données sur les rues donc il y a un petit peu de stress parce qu'on pas en sécurité dans ce pays loolu moo la voie est, agressive mais jàppal c'est juste une voie patriote citoyenne qui est très contente de répondre à Rewmi merci beaucoup di fàttali yaay euh, mandataire national coalition euh, nationale coalition buntu bi